dinaa leen jël benn par benn ngeen wax seen xalaat ba leneen ñëw man fii laay yemagun incha allahu rabbi du ma dépasser les bornes du ma enlever les bornes mais tamit du ma abaisser les bornes ci direction bi rek laa koy teg Sénégal di ma déglu ma koy teg ci temps waaw kay simila Αγγλικό. Έλα. Δεν βέρω. Σύχασα και... Έλα πίστε μου. Makale cinque. man avant tout damay wax sénégalais ñu remercier la pare ndax enquête jël nga ko au sérieux wax dëgg fa neex yàlla yaa ngi joxe ay information fiable jërëjëf dëgg fa neex yàlla enquête bi moom dañ si def parfaitement waa di sax ko nii kon naa may tala jërëjëf kontaan naa salaamaaleykum merci beaucoup Fatima bisimilah Adamo ci loole na mu naa la dawaa naka dëkk bi si jàmm ça va bien mi ngi joxe ñu ngi nii rek ragal suñu néegi dañuy ragal a nelaw. ah. waaw loolu laa ragalee instant bi. ah, ah ragal ñu rey. waaw. yow dëpp la rey loo def yow yoroo ay milliards dencoo dara. doo góor jigéen doo lesbienne. mais maay doomu aadamoo nag. Hmm. ah yaa ngi si jàmm. maa si jàmm ba au fait euh, sa kii li nga ko waxee nii euh, dégg nañ ko bu baax mais bon ñun ñaari version yi kese moo ñu si mais mm-hmm. nag boos nag yaay borom dëkk bi de sama papa ji boo taayee laan ci koy ñoom toog di la seetaan. jërëjëf jërëjëf ndax waxuma dof moo tax. waaw waxu li ngay wax bonne continuation monsieur le vice. jërëjëf Fatima kontaan naa. Fatou Niang bisimilah. allo Moussa ça va noo def. waaw mbir mi. ah man de xanaa doy waar rek daanaka yow li ngay wax sax moom la ñuy gën a déglu que li ñu leneen di wax. jërëjëf ndax tey mënoo ma def ba toll ba fii ngay wax affaire bi góor jigéen lu logique am na lu logiqueul nit ñi xam nañ ko aussi. jërëjëf nañ teg lépp ci loxo yoon yoon def liggéeyam yàlla gën a àtte gën a leeral mbir mbiri depuis loolu kenn nelawul xel yi dalul fit yi toogul nit ñi jaaxle nañ sécurité nit ñi amatuñ ko yow da ngay tiit sax boo tëddee guddi naan man baa dara duma fekk fii et tout jërëjëf nañ gën a rafetalaat jikko gën a sedd xoolaat toogaay gën a xam tamit ñu ñuy ànd ak fi ñuy toogee ak fi ñuy waxee aussi loolu c'est très important dafa war a xam à chaque fois fu ñu teg tànkam na enquête bi gën a yaatu yàlla teg ci loxo mbir yi gën a lee incha allah jërëjëf merci beaucoup léegi caatu ñëwal après président ñëw caat caatu bismillah maa ngi nuyu ñëpp ku nekk si tur ak sa sant. jërëjëf. Adamo yow de Sénégal yi sax yaa leen gën a avancé si enquête bi. jërëjëf. mais li ma li ma li ma li ma bëgg a wax mooy comme que sénégalais yi ñëpp ñu ngi lay am na ñoo xamante ni yow la ñuy déglu comme information. Mhm. bala nga jox benn information rek vérifier bu baax a baax parce que piste yi dafa bëri trop information dafa bëri. man nee naa 18 millions Sénégal yëpp ay enquêteurs bi ñëpp ñu wax. ñi xam a ngi wax ñi xamut a ngi wax si yaa ngi wax ku nekk ak la ngay wax nu nga si tudd ay artistes nu nga siy tudd ku nekk. donc lii nii dafa xaw a luus am na yeneen yu laxasoo si biir na Sénégal def très attention. man moom man man moom la cas de Nabou Leye man xaw ma Nabou Leye xaw ma Aziz mais version yi si boppam affaire bi ni demee dafa dafa doy waar. yéen ku si nekk meilleur ami boo xamante ni nii. sa meilleur ami laa wax mooy xam seen compte wave mooy xam code bi da ngeen di échanger ko ay clé ku si nekk affaire bi ni mu demee c'est trop dafa lu trop man nag li tax lu kenn kenn tuumaalu kenn nag kenn tuumaalu Nabou lay kenn tuumaalu keneen mais cas bi ni mu demee si boppam kenn mënu see génne kenn man man je me suis dit que lundi kii samedi ba dimanche képp ko xamante ni fréquenté na ay rek si affaire bi nan ko arrêté jërëjëf waaw man daal loolu am en tout cas de toute façon euh, kontaan naa quoi si li ngay def. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf bëri si ñëwal. Boor naka wala lu jaww. naka dëkk bi. Euh, naa seetlu ko. ça nga ci wax rek mooy euh, am na lu mu xam quoi moo tax gars yi téye ko. Mhm. ni nit police moom su la defee garde à vue rek c'est parce am na loo xam loo xam. dëgg la lu tax mu téye la mais euh, mën na mën na bañ a rey mën na aussi euh, bañ a bokk ci complice yooyu mais peut-être am na lu mu xam avant loo xam ne su ko waxoon euh, amaana meurtre bi du am. dëgg nga voilà loolu daal laa laa la la la la laa xam ni li tax ñu téye ko ba heure bi lan lañ koo bàyyi loolu ci la quoi. beneen bi ci mooy gis nga nit su génnee àdduna la ñuy wax ci moom lu rafet. parce que tey jii mënuñoo bàyyi ba nit génn àdduna ñii enquête ñii génn fii naan ay borom ñaari tur laa kii li moo tax mu rey ko kii laa. parce que wax su defee aussi nopp yu koy déglu war a wér quoi. wala kii kii kii nelaw nelaw na xam nga nañ ko seedeel lu rafet même su fekkoon loolu dafa am sax waruñu ko sax génn di ko communiquer site boobu génn communiquer loolu moom ah xam nga bon site la mais waa famille Aziz war nañoo génn dem dem porter ko parce que am na loo xam ne nekkul lu rafetul teg si doomu nit teg si deru nit quoi. benn mooy loolu. jërëjëf jërëjëf benn quoi. si. dégla merci beaucoup may naa bisimilah may naa ñi ngi lay déglu mayna naa naa mi tëj micro bi moom yow wàccal bintu bisimilah. asalaamaaleykum Adamo naka mu. wéli wéli quoi. allo. guddi génn rek. kii waaw. tontu bisimilah. Adamo ça va yaa ngi si jàmm. waaw yow nag. maa ngi si jàmm alhamdulilah.